ومقالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد إني له عبد خديم من نبي وهو المقدم والشفيع الشاهد دنكو ورا ورمان ku tolog yow ay at dang ko war a def ni sa sant tere la nga bàyyi lu mu la tere loolu xujja la kon nag programme bi yëpp ci loolu lañ ko tënk kon defar na àdduna nit ñi dañoo jàngoon nasaraan dama ci jox exemple mooy jëmm jële di sëñ Lo maag moom tey dem nañu ba nekk inspecteur éducation nationale ca njàngale ma li waaye xam nañu ne njàng mënee am na ay gàllankoor war nañ ko jubbanti lu tax war nañ ko jubbanti programme boo nga xam ne moom la ñuy doxal programme boobu dafa mel ni dafa gulle xamul fu mu jëm ay entrées yu xam nañ ko réforme yu xam nañ ko entrée par les contenus entrée par les te ñuy wax entrée par les compétences te ñuy wax ne dañuy moderniser waaye xam nañu ne liy tënk doomu adama dëgg-dëgg mooy ay valeur liy tënk doomu adama mooy yar mooy teggin te loolu moo nekk ci programme bi euh, sëñ maa ngi moom ñoo bokk comme bu ñu yaroo Kaolack këram daara la woon Baye ku ko xam xam dafa yaroo ak njabootam da dem di jàngi français waaye da nga ci diine man yi suñu kër même chose dañuy jàngi français bu ñu wàññee ko dem ca daara ja bu ñu wàññee ko toog ci mbaar bi nga xam ne moom la suñu waajur defoo waaw kon nag waaw ñu ngi jégalu kon nag tey ku gis jëmm ji dangay defe ne jàngul nasaraan man ku la gis di nga defe ne jànguma nasaraan waaye jàng nañ ko dañ ko def jum jumtukaay waaw mbugoon kaay lañ ko def kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum mbooloo mi ñu nuyuwaat di jiital ci cant goo xam ne gii ñu ngi ko jëmale ci xalif général de mourides sëñ sëñ Muntaxa waaye nag di ko jaarale ci sëñ bii nga xam ne nii taxawaay bi mu taxaw ci liggéey bi ñëpp gis nañ ko

li ñuy wax rek mooy sant nañ cant boo xam ne am na fu mu tàmbali waaye am na fu mu yem ndax éducation njàngale bi mairie bi état bi da koo teg ci loxaam mu war koo saytu waaye fii nag dafa particulier ndax lii nga xam ne nii noonu lañuy ñuy def lii daa doon bëgg-bëgg sëriñ Muntaxa moom mu wax daaram ju mag ji ñu nekk ci di liggéey toog ba toll ci étape bi li ñuy sant nag mooy dafa mel ni Touba lim soxla woon sëñ bi wax na ko léegi fi ñuy jalon yooyu lañuy teg am ay gone yoo xam ne yi dinañ leen tàggat la war a nekk ci ñoom lépp nekk ci ñoom ndax dinañ yóbbaale diine yóbbaale xam-xam loolu dafa am solo sëriñ bi loolu moom mën nañ ne su fekkente ne saa borom dimbale nañu ci lii du yem fii ci Touba faaw mu sori ndax tey jii jikko yi ni mu demee xew su fekkente ne ñun dèjà suñuy ndaw jël nañu li nga xam ne ni mooy jumtukaay yi ñu war a am mën a nekk ay nit ñu civilisé door ñoo xam ne dañu doon taalibe loolu mënuñu am lu ko ëpp te tamit li ci ëppati solo ci programme bi ci ñu ko gisee mooy ni ñuy def lépp loo xam ne li ay enseignement la ay njàngale ñu fi dugal mu am référence ñu am benn référentiel boo xam ne bii moom Serigne Touba ci lañ ko teg loolu nag wax dëgg yàlla danañ ko santaat bu baax a baax Serigne bi ndax lu am solo la di sant nag bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci commission bi ndax programme bi ñu fi tënk ñun lépp luñ ci wax dañuy ñu lañ ko defal kon nak di ci des rek mooy sàkku ci sëñ bi xanaa mu doole ñu ñaan ñun ñëpp suñu wàll liñ ci muy mairie bi ñu euh, man ko jouer pleinement fu mu war a euh, nekk seen wet nekk seen wet su ngeen ñu joxoñee ñu am Pastef ak euh, mën manu def la ngeen ci bëgg Mbacke Balla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla ci turu monsieur le maire Abdou li ñu fi gis mel na ni ñu ngi ñuy defaral suñu société te ñu ngi ñaan mu law incha allah jërëjëf merci. asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu sant yàlla. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant sëñ Mountakha Bachir di sant également sëñ Ahmadou Badawi mi nga xam ne moom lañ dénk liggéey bu rëy bi di rafetlu atelier deux jours bi nga xam ne ñëw nañ participer ci ci turu inspecteur d'académie muy atelier bu am solo boo xam objectif bi mooy validation section école moderne de Touba ñu rafetlu liggéey bu am solo bi nga xam ne moom commission yi def muy liggéey bu mucc ayib ndax document yi ñu soumettre biñ leen analyser gis nañ ne liggéey la boo xam wax dëgg yàlla def nañ ci lépp lu ci war taxawu observation observation yooyu jàpp naa ne en compte document bi dinañ ko yi inspecteur de l'éducation et de la formation de représenté par son secrétaire général inspecteur Mamadou Lo di sant ñi fi teew ñëpp di rafetlu seen engagement dañoo tax liggéey liggéey bu rafet noppaluwuñu en tout euh, ci turu inspecteur d'académie daal ñu ngi rafetlu liggéey bi di exprimer suñu contentement ci

Après, on, va avancer vers la validation institutionnelle, certainement. Donc, je vous remercie. Je vous remercie.